Mark saar ñeent. am beneen yoon Yeesu nekk ci wetu dex ga di jàngalewaat mbooloo mu bari dajaloo si ba tax mu yéeg ci gaal dugg ca dex ga mbooloo mépp taxaw ca tefes ga noonu yéesu daldi leen jàngal lu bari ci léeb ci njàngaleem nag mu ne leen déglu leen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 noonu yeesu ne leen diglu bu baax yow mi am ay nopp saar ñeent ay fukk ba ñaar fukk ginnaaw loolu ba yeesu nekkee fu wéet fukki taalibe ak ñaar ña ak ñeneen ñu daan ànd ak ñoom laaj ko ci mbirum léeb yi mu tontu leen yéen may nañu leen ngeen xam mbooti nguur yàlla waaye ñi ci biti léeb ay ëmb lépp noonu la ngir ñuy xool bu baax waaye duñu gis dara di déglu bu baax waaye duñu xam dara ngir bañ ñu tub seeni bàkkaar te yàlla baal leen noonu yeesu ne leen ndax xamuleen léeb wi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 ba jariñ kii fanweeri yoon lu ëpp lañu jiwoon kii mat juróom benn fukk kii itam ndax nit dina jël làmp dëpp ci leget walla def ko ci ron ndax du ko wékk amul dara luy kumpa lu ñu warula siiwal mbaamu mu làqu te warul ne fànn déglul bu baax yow nopp mu ne leen seet bu baax li ngeen di dégg des na leen nattal ak natt bi ngeen di nattale te dolli leen ku am des na la dollil ku amul li nga am as néew des na ko nangu Yeesu teg ci ne nguur yàlla dafa mel ni nit ku ji tool muy nelaw walla muy xool guddi mbaa bëccëg jiwu wi sax di màgg te xamul naka la ko defe suuf day meññ moom ci boppam mu sax focci defi gub bu gub yu ñoree nag mu dagg ko ndaxte ngóob jot na yeesu ne lu nu mën a méngaleel nguuru yàlla walla ban léeb lanu ko mën a misaale dafa mel ni doomu fuddën bi gën a tuuti ci jiwu yépp waaye boo ko jiwee day jóg màgg ba su gàncaxi tookar yépp mu sax ay banqaas yu rëy ba ci asamaan tàgg ci këram noonu yéesu dégtal leen yeneeni léeb yu bari yu mel ni yii di leen xamal kàddu gi aju ci lu ñu àttan daawuleen wax dara lu ciy léeb waaye bu wéetee ak ay taalibe daan na leen firil lépp bés booboo nag ci ngoon yeesu ne taalibe yi nanu jàll dex gi mu yiwu mbooloo mi nag ay taalibeem jël ko ni mu mel ci gaal gi te yeneeni gaal ànd ak moom naka noona ngelaw lu mag daldi jóg duus yi sang gaal gi ba mu bëgg a fees fekk yeesu tëdd di nelaw ci ngegenaay ci taatu gaal gi taalibe yi daldi ko yee naan kilifa gi ndax sunu bakkan soxalu la ci kaw loolu yeesu jóg daldi gëdd ngelaw li ne dex gi noppil te dal noonu ngelaw li dal ba lépp ne nemm yeesu ne taalibe ya lu tax ngeen tiit ndax gëmaguleen ñu daldi ragal lool naan ci seen biir kii moo di kan ba ngelaw li ak dex gi sax di ko déggal